ahmad ibni muhammad ibni habibillah mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baloo àq di leen baal àq di ñaan yàlla tabaaraka wa taala mu boole ñu jéggal di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak daje bu am solo bi ci bërëb bu màgg bi di bërëb boo xam ne bërëb bu tànnu la ci biir bërëb yi ndax ñi fi nekkoon ndax xam nañ ne bërëb dana gëne moroomum bërëbam ca ña ko dëkke bërëb bii nag ni ko ñépp xame buñ ko yaatalee ne ku tedd ki fi dëkkoon waaye buñ ko yemalee ci kees gi it ne ñu tedd ñi fi nekkoon tax na mu gën ay moroomi bérébam yu baree baree baree bare nga ne loolu mu gën ay moroomi bérébam nag wéyal ga ak dundal ga mi ngi aju ci ñi fiy ñëwaat ginnaaw ñooña moo tax daje biñ fiy dajee at mu jot di lu am solo ñun ñii ñu ciy sant suñ borom ci boole gi ñu ciy boole waaye it di ci barkeelu ci teew giñ fiy teew niñ ko xame tey jii dañoo sàkkoon ci ñun ñu waxtaan ci ay jikko di bërëb bu yelloo nag ñu waxtaane fi ay jikko ndax mën nañ ne defar ay jikko rekk moo waraloon ñu sanc ko jikko nag buñ ko waxee mën nañ ko tudde ne takkaay la loo xam ne li ñuy tudde bakkan te mooy doomu aadama ci boppam la koy jëmmal rekk bañ naan nit loolu boroom xam-xam yi jàngale yar dañ koy tudde bakkan bakkan moomu nag day am ay takkaayi biir ak ay takkaayi bitti takkaayi biiram moom lañuy ñuy wooye ay jikko takkaayi bitteem ñu koy wooye ay li tubaab di tudde ay nekkin wala ay comportement wala ay doxaliin wolof noonu la koy mën a tudde boo ko seetaatee nag dangay gis ne melokaani biir yooyee ñooy génn feeñ ci kaw buñ ko jëfandikoo mu jur li nga xam ne mooy melokaani bitti ngir mu gën a yomb dégg rekk ci jikko mën nañ ne kii de ku am yërmande la waaye boo agsee doo gis yërmande ji ci kawam muy tege kon melokaanu biir la mën nañu ne it kii de ku lewet la waaye munoo tiim ko rekk mu toog nii te waxul deful nga gis lewetaay bi loola kañ nga koy gis mooy bu jëfee mbaa mu wax ca ngay gis ca jëfam ja luy wane yërmande feeñ ca ca waxam ja luy wane ab lewetaay feeñ ca su boobaa ñu daal di mën a wéyal ne jikko yooyu mi ngi ci moom bakkan moomu nag bu ko sunu borom subhaanahu wa taala dee andi ci àdduna du amagun daanaka wenn melokaan luñ cay def lay doon moo xam day jub mbaa muy dëng moo tax sunu borom subhaanahu wa taala di wax ne wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha ba muy wax yenn melokaan newoon na ak bakkan ak na ko yàlla binde ba mu yemoo mu lënkale kooku kàccoorteem wala boog akuk ragal yàlla mooy rekk mu dëngal ko mbaa mu jubal ko ku dégg loolu nag mën nga ne konkat yàlla rekk kay jubal directement wala mooy dëngal directement waa xam nañu sunu borom dafa baaxoo digle ñu jàpp ci sabab yi jàpp ci sabab yooyu nag pour mën a takkal nit ay melokaan yu jub mbaa yu dëng moom lañuy tudde yar nit ku ne ki ko yar wala ñi ko yar wala li ko yar loolu mooy tax mu am jikko sàngam ak sàngam moo xam nag jikko ba daa baax wala muy jikko bu safaanu wala yaasu billaah moo tax da gis ne ca mujjantali aayaat yooye sunu borom moom tànnloo nañu lëgën mooy ñu jubal ko nee na qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha ki nga xam ne moom dafa sellal bakkan ba defal ko takkaay yu baax tegal ko ak njub ba man koo jëfandikoo kooka nee na texe na waaye ki nga xam dafa seetaan bakkan ba wala sax seetaanu ko waaye daa jël ay safaan sëf ko ca ba bakkan ba dëng kooka itam nee na kokku na bu ñu ne kokku mooy la mu doon séentu lépp ci lu baax day dem fekk mu dig neen du ca am dara kon ndekete woo bu wolof nee nit ki baax na balaa baax gaa dëggu ci lislaam day fekk muy ku toppatoo bakkanam ba takkal ko ay jikko yu baax waaye buñ nee nit ki safaanu ne it day fekk muy ku sàggane bakkanam ba takkal ko ay melokaan yu dëng moo tax ki jubal bakkanam texe na waaye ka ko dëngal itam mel na neneen kon xam nañ bu baax ne day mujj nekk lu munta ñàkk nag cib jullit mu takkoo ay jikko yu baax takkoo ay jikko yu baax ba nga xam ne dana bokk ci ñu ñuy mën a limaale ci tànnee fi jullit ñi moom mooy tax li lislaam bëgg ci moom ci mu taxawe ko ngir defar tayam ak ëllëgam mu mën koo taxawe ca na ko diine bëgge moo tax yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne addiinu kulluhu xuluq diine léppam ay jikko la waaye jullit bu dégg loolu rek ci saa si da nga xam ne bu sang bi di wax loolu sallallahu alayhi mu ngi ci jublu jikko yu baax moo tax sax mu dolli ca ne fa man zaada alayka fi diini wala fa man zaada alayka fi lxuluqi ku la ëpple ay jikko yu baax rekk xamal ne moo la ëppale diine ndax diine kat doyewuñ ko lu weesu am ay melokaan yu la may nga jox yàlla cër bi nga ko ameel ci ay àqam ci wàllu jaamu ko waaye itam mooy li lay may nga am jikko yu baax yu la may nga mën a jëflanteeg mbindeef yàlla yim booleeg yow ci àdduna ba jëflante ba mën a rafet ndax diine weesuwul al ibaada wal muamala jaamu yàlla directement ak jaamu ko indirectement indirectement bi mooy mbindeefam yim bind ci kaw suuf te digal la nga nekk ak ñoom nekkin wu rafet nga fexe ba noonee mu ko bëggee ci yow nga defee ko ni loolu mooy beneen xaaju jaamu yàlla bi ñuy tuddee al muamala kon loolu lépp ndeke muy jaamu gi jëm ci yàlla directement ak jaamu gi nga xam ne ci jaam yi lay jaar te sunu borom digal la ko gum ci mën a doon bu jikko yu rafet amul du mën a mat ni nga xam ne noonu la la ko yàlla digale kon day jaadu bu baax a baax nit bàyyi loolu xel ba diineem mu mën koo taxawe ni nga xam ne noonu lañ ko ko digale te loolu mooy mu am ay jikkoom xam nañ ne sunu borom subhaanahu wa taala daf ñoo wax ci alquran ñeenti ndénkaan yoo xam ne mën nga ne ñett yi ay digle la benn bi ab tere la te jaare ko ci làmmiñu nitu xaaru naña ñu doon ko ko laabiire te muy ci coobareel borom bi mu jublu koo jottaliwaale nag képp ku ko gëm tabaaraka wa taala waxoon ne wabtaxi fii ma ataaka llaahu daaral axirata wala tansa nasibaka min addunya wa axsin kama axsana llaahu ilayka wala tabxil fasaada fil ard teg ca loo xam ne mooy leeral ne yàlla tànn na fam ca bëgg ndax dafa ne inna allaha laa nee na nit ñi dañ wax xaaroon na ne ko te loolu mooy yàlla dafa wax jaamam ñi ne leen li la yàlla may ci kàttan ci xam-xam ci xel ci doole ci alal ciy jikko nang ci wut loo defaree sa këru àllaaxira waaye bul fàtte mukk nag sa wàll ci àdduna te it loo ci mën a def ci yooyu na rafet comme ni yàlla rafetale ci yow bi mu lay tere nag mooy waaye bul fàggu mukk loo xam ne day yàq ci suuf si te ñett yële képp ku ci taxawee ni mu ware bu mujj bi danga ciy mucc ndax nit du boole mukk taxaw temm ci lu ko may alaaxira ju baax boole ci lu defar àddunaam ci lu dagan boole ci di ko jéem a rafetal ni ko yàlla rafetale le moom ba noppi di ca dooleetu lu yàq ci suuf si munta nekk kon ñeent yi jullit bu ko matal mooy sa digg ak sa boroom ni mu la ko digale woon def nga ko te lool kenn mënu koo def lu dul dangaa am ay jikko yu rafet jikko nag niñ ko waxee rek sànq mu ne su ko am lu dul ab yar dafa am te it ab yar bu rafet sax yar bu rafet buñ sonnee ba defar nit ki defaral ko bakkanam ba nga xam ne dana mucc ci wenn ñaawteef fu ñuy tudde ne ci jikko lay jóge bu boobaa ki ko doon yar jaanam wàcc na bu dee moo doon yar boppam jaanam wàcc na te loolu lépp am na nit danañ ko yar waaye nit dana yar boppam nit it kenn nit dana ko yar waaye nit ñi ci mbedd mi danañ ko yar waaye moom ci boppam it mën naa yar boppam imma bee ñàkk mu jël ba ca des teg fi wa imma sax bee am te matut mu jël bi ca des mottulee ko ko danga koo xam ne kilifaam tàmbali na ko yar waaye yar ba des na lu bari mu génn ci mbedd mi mottali lu bari ci ab yaram ndax mbedd mi wala ndoxandéem wala lu ci aju waaye it moom ci boppam mu dem bay mag ba am xelam ñor sax mu mottali boppam ab yaram yooyu yëpp mën naa am kon nag yar ndeke lu mat a taxawe la ndax mooy maye résultat yu am solo yooyu te mooy ay jikko yu rafet yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan wax ne ahabul ibadi ilallahi tabaraka wa taala ahsanuhum xuluqan aw kama qaala sallallahu alayhi yàlla jaam bi ko gënal ci jaam yi mooy jaam bi ci gën a rafet ay jikko xam nañ bu baax ne sunu borom subhanahu wa dafa baax tabaraka wa taala dafa teey dafa sell moo tax luy nurook ak mbon wala rambax wala xajam yàlla du ko bëgg te yooyu mu ngi jóge ci borom jikko yu ñaaw yi kon yi muy bëgg mooy jóge ci boroom jikko yu rafet yi moo tax kiy jikkoom gën a rafet kooku la yàlla gën a bëgg lu lu mat a bàyyi xel la bokk na ca rek bokk na ca rek ngëneel yi nga xam ne jikko yu rafet am na ko ba tax lislaam di ci soññe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci ñaax bu baax a baax jullit ñi am na benn xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa ne dafa am ku ñëw fekk moom Abu Hurayra mu ngi toog ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa keneen jóge fa la ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lan moo ëpp lu muy dugal nit ñi àjjana Seydina Ahmad sallallahu alayhi wasallam ne ko ragal yàlla ak rafet jikko ragal yàlla moo lay may nga di ko jaamu nim la ko digale ndax ragal nga lool ne moom mii de lim lay def loolu mu sañ la te boo ko defut ko la sañ a mbugal la waaye rafet jikko nag moo lay may ñim la booleel ngeen bokk dëkk ci àdduna si te moomoo leen juróo leen jëndoo leen yàlla dala fee wàcce wàcce leen fi ni leen bokk leen dund fi nga war a rafetal na ngay dundee ñoom soo rafetul jikko doo ko man kon ndekete woo yonent bi sallallahu li muy doon boroom jawaami'ul kalim day feeñ ci waxam yépp waaye rawatina ci wax jooju noonu taqwallaahi wa husnul xuluq ragal yàlla ak rafet jikko kese la wax ne moo ëpp lu muy dugal nit ñi àjjana et ñun mën nañ toog fi jàpp ne bari julli lu baax la bari woor dëgg la bari saraxe ndax xam yooyu yëpp sax am na ci fu muy ñëwee ci yeneen ahadis di wane ne luy duglee àjjana la waaye ci hadis bii nii moom liñ ciy dégge mooy ndeke woo ragal yàlla ak rafet ji ko sax yeneen yu baax yooyee ñuy lim yépp ñoom ñaar ñi mën nañ koo ëmbaale ci seen biir bu nit xasee ragal yàlla rafet ji ko lépp lu baax lu ne mën na ko def kon loolu bokk na ci li ñuy tax ñu xam ne lislaam daa soññee ci rafet jikko waaye sëriñ Touba radiyallahu bu ngeen demee ci tàmbalib Nahju Qadaa'il Haaj da ngeen fekk mu wax fa ni jikkoy rafet amee solo donte baatu teggin la fa jëfandikoo waaye baatu teggin ci meññeti jikko lay bokk xam nga dañuy wax ne nit ki suy bëgg lu baax ak di ko wut mi ngi def li ñuy tudde suluuk mooy sóobu ci dara waaye bu demee ba tàmbalee jël melokaan yooyu di ko taqal boppam di ko mel ma ngay def li ñuy wax taxalluq di ko def muy ay jikkoom waaye su ko tàmbalee jëfandikoo nag ba mu nekk ci biiru dundam jaxasoog moom ñoo ngi koy doog a tudde al adab al adab ci wolof saxloo lay firi ay teggiin mooy melokaan yi lay may nga mën a teggi lu bon wuti lu baax xam ne foo tiimee lu bon au lieu nga cay dal say jikko moo lay wommat nga teggi ko jëm ca leneen noonu la baat bi di firi bu dee arab dañuy wax ne al bu mook ad da bu ñooy bokk maana ay muraadi faat lañ buñ nee da bu mooy lu nit saxoo tàmmal ko boppam baat boobu ci lañ dem ba génnee li ñuy wax mabda muy li tubaab naan principe nga xam ne melokaan wii day say principe bi bopp yow fa soo ko yéene bàyyi mukk ndax dara Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu benn xadis boo xam ne benn jikko la jël comme misaal waaye mooy yóbbaale jikko yu baax yépp yépp yépp jàngal ñu état yi ñu fi tudd yépp muy suluk ak taxalluq ak ta'addub nga xam ne dafa ne aleykum bis sadqi maa ngi leen di dénk ngeen fonk dëgg loolu mën na ne waa ji jëfe loolu ma ngay sóobu waaye mu tekki ne fa inna sadqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal ilal janna waaye je cetul aaya ba cetul hadis ba astaghfirullah azim danga cay fekk liy mott li maanaa yépp yëpp maanaay suluux taxalluq te addub mu ne maa laa yazaalul abdu yasduqu wa yataxarra sidqa xataa yuktaba indallaahi siddiqan boroom xam-xam yi ne maa yazaalul abdu yasduqu mooy bi muy suluuk mi ngi dëggal ndànk-ndànk waaye waaye taxarra sidqa taqoo dëgg nag fu mu toll di dëggal waaye tëkkoo ba tëkkoo ba ba xataa yuktaba indallaahi siddiqan ba far yàlla bindal ko turu dëggalaakon bi nga xam ne loolu bu ko yàlla xasee tuddeb jaam kooku dootu defati lu dul dëgg dootu waxati lu dul dëgg ñu ne kon bi naan bi yonent bi naan jaam bi du dañ di wax dëgg wala di ko jëf ma nga ca suluuk waaye taxoo ko tëkkoo bàyyi ma nga ca taxalluq bu demee ba yàlla adressé ko dëggalaakoon bi nag boobaa ma nga ca la ñuy wax principe def na ko muy principe am te dootu tàqalikoo moom kon euh, dëgg googu mu jël ci xaddis boobu jël safaan ba muy wax safaanub dëgg dañuy représenté mboolem jikko yi ci des place boobu sidq dëgg euh, euh, dugg ci biir xadis bi boo fa duggaloon ar rahmatu mu dem boo fa duggaloon al afu mu dem boo fa dugaloon leneen itam loo xam ne jikko baax la mu dem fële mu dugal alkasi bi it bépp jikko safaan boo fa dugal itam mu dem kon nañu bàyyi xel ne lislaam jikko ci boppam moo koy tax a doon lislaam jañu taamu waaye fileeg nit ki jërut ay jikko yu baax takkoo ko na xam ne la ñuy séentu cib jullit du nekk ca moom moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu day wax fii ne ca tàmbali bi nax ju xaaj wa huwa fi daarayni xayru kanzi moom jikko yu baax wala moom teggin bu la neexee ci kërug àdduna gi ak këru alaaxira ga ñu jëm coffre-fort ba fa gën lu mu denc moom mooy jikko yooyu noonu waaye tekki ne wax xayru matazza bihi zu izzi lépp lu borom tedd nga di teddee rek ay jikko yu rafet moo ko gën euh, sunu mag ñu baax ñi nga xam ne dañ daan taalif da nga ci dégg ñu baax a baax a baax waaye damay wax toujours ne surtout Serigne Mbaye Jaxate da ngay dégg mu wax abyaat yu gàtt li mu ëmb ci ay njariñ kenn mënu wax nu muy toll da nga dégg mu ne ab yar dafay tax ñu jël nit ne ko tegg ca kaw ñàkk bu yaray tax ñu teggee nit ci kaw di ko caw wala boog amub yaray tax ñu fab nit ne ko tegg ca kaw ñàkk bu yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw wax jooju li muy gàtt gàtt gàtt li mu ëmb ci ay maraan yi munoo xam ne mu toll te ñun ñëpp a ko xam nag ab jataay lu mu rëy rëy rëy ak lu fa nit man mën a mën a sonalaate wala mën a gëddaate wala mën a yamalewaate doo gis ñu yamale ña yaru mukk ku yaru toog cib jataay mbaa mu taxaw ci fu ñu taxaw wala mu tëdd ci fu ñu tëdd doo fekk mukk ñay organiser di ko yamale ndax yar baay làmb ne lépp lu mu war a def dana ko def waaye lépp lu mu warut def du ko def te ku mel noonu kenn amut mu lay wax moo tax nga dégg mag ñi daanañ wax daanañ boole nit ak alalam duma ma ndax am xam-xam li muy am am solo ci diine mën nañoo boole nit ak xam-xamam duma waaye boole nit ak tegginam duma kenn du ko def moo tax Serigne Touba sa dayoon ne xam-xam te moom defe naa nim fonke xam-xam amu ci moroom lim wax lépp ci xam-xam ak soññe ci kenn xamul nu mu toll moo ne teewul mu ne ku bare xam-xam te àndul ak i teggin daf lay jural ay lor dong ak i coono fa kasratul ilmi bi gayri adabin jaalibatun ilal aza wa taab bare xam-xam te àndul ak i dafay ñoddil nit ki ay lor ak i coono dong loolu lu wér la bés fen ngeen gis toj-toj bu ñu def mbaa ñu wax ko fii ci réew mi ñi xam danañ xam ne kii de lim wax moo ne xam-xam am na lum ci saxal waaye ñàkk teggin gim ko waxee moo tax ñépp dañ koy wan ginnaaw te loolu du jeex xam nañ ko bu baax ci suñu dëndiini dëkk bi suñu réew mii ci politique beeg même ci waxtaankatu diine yi sax danga ci gis ñoo xam ne ni ñuy waxe li ñuy wax mënoon naa gën a tegginu loolu dana taxit ñu bare ñu ko waroon a jëlit duñ ko jëlee nañ ko waroon a jële ndax nañ leen ko joxe moo baaxul loolu mën nga ko wëlbatiwaat sax tudde ko pédagogie rek ndax di joxe dara te xamoo yoon woo war a jaare ba jox ko ñi koy jox ñi koy jël ñu bëgg ko ba jël ko ñàkk gee def ñàkk teggin doomu la boo xamoon nooy teggee yoon wu dëng wa ba jaar te yoon wu jub wa kon ñoom danañ ko jël te day am ci waxkat yi day am ci jëfkat yi day am ci ñi ngay jëflanteel ci lu ne nit koo xam ne wóor na ne lii mu def nii am na nu mu ko doon defe day rafet lool ñëpp dañ koy bëgg waaye moom yàq na ko ndax defe na ko defin boo xam ne àndul ak teggin ba tax na ñu bëri wan ginnaaw te mu mënoon a bañ a demee noonu waaye Serigne Touba yemul ci wax noonu teggin ame solo def cee dolli it ne teggin day leeral xol waaye teggin day jegeloo nit ki àjjana teggin day tax say dëkkandoo di la tagg fuñ toll waaye teggin da lay soriloo sawara itam li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yu baidu ani niiraan kon ndeke woo teggin mën nga wax ne rek daanaka mooy lépp lépp moo tax bi nga xamee ne dem na ba jeexal téere bi Nahju Xabaa'il Haaj boobu nga xam téere bi yar la ba muy ñaan ba mu jullee ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba noppi dafa ne ña julli googoog sëlmal googu na koy wàccee ci kaw sang bi sallallahu alayhi boroom jikko yi nga xam dañoo takkoo ay teggin ñi ngi am lépp lu gën ci li ñuy soxla tey ak ëllëg maadaama du taxalluqin bil adabi yenaalu fi daaray ni xayra bi loolu liñ ciy dégge mooy ndekke kon ki nga xam ne dafa takkoo jikko yi teggin kooku lu mu soxla àdduna mën na ko yomb lu mu soxla alaaxira it mën na ko yomb teggin lu ama ama am solo la loo xam ne dundub jullit bi mënu ca ñàkk léegi nag ñiy yar ci tënk ndax xam naa waxtu waa ngi dem dañuy dégg ñoom it li leen Seydina sallallahu alayhi wa sallam wax kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yu hawidaanihi aw yu majjisaanihi aw yu nassiraanihi aw kama qaala sallallahu alayhi wa nee na doom ju ne buy judd moom du ëndaale leen lu dul nafsu boppam képp nafsoom kese lay andi nafsu mi ñu waxoon ci tàmbali bi kon bu ñuy wax naan sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñaan muslu ci gàllankoori nafsoog seetaan ak bànneex ak àdduna nafsu mi defarut moo tax sëñ bi di wax moo taxit it bi mu ñuy dénk waxuñu wacc leen nafsu ndax wacc nafsu kenn mënu ko wacc mais danañu defar leen nafsu comme ni ñu ko yàlla waxe ci aaya bi ñu waxoon ci tàmbali defar leen nafsu la ñu wax waaye waxut nañ ko sànni da dégg ci tàmbali bi jaawartu mu di ko wax waxut taraktu nafsiya mais dane malaktu nafsiya moom naa sama nafs moom ko mooy jëmloo ko ni ma bëgg mu jëm ko da dégg mu ne axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan wan qaada lil wali safal janaan defe naa damaa damaa ñëw ci baytu ba mujj ba njëkk mooy euh, bu ne bu ne jaawartu bil furqaani rabbiyal muin dafa caa teg malaktu nafsiya wa zahzahtul la'in ñaar ñi jàll nañ mooy seytaane ak bakkan bi moom naa ko seytaane jañ naa ko daaj cay teg nag axaltu min duniyaahu zaadi lil jinaan àddunaam ji sànniwu ma ko de mais dama caa jël yóbbal bu may yóbbu àjjana daal di wax nag wan faadalil hawa bànneex ba it wommatu na topp sama ginnaaw man sama waajur daf ma daan wax ne gis nga boo defee sa bakkan ilimaan dina la jiite ci jàkka joo xam ne bëggoo fi woon a loolu nag defe naa ni ñépp ko xam bari na koo xam ne ci njëlbeen daa topp bakkanam ci mbir muy neex ci moom bànneex ñëw dimbali ko ca àdduna jàppale ko ca seytaane daal di leen di dimbali ba muy teeri day am lu ko soofa soofa soof te ak dund mënee su ko arrièreaat mas ko dabaatal waaye arrièreaat ko effacé la nga defoon mëneesu ko kon bakkan ndekewoo du lu baax kon yonent ci salaasam bu nee doom ju judd ju ne bakkanu keseem la fi ne cëppee yéen ñaari waajuram yéen a koy jëmloo nii mbaa ngeen jëmloo ko ne te mooy yéen a koy yar mu nekk ku baax mbaa ngeen yar ko yar bu bon mu nekk ku bon ndax yar moom baat dong la daa am bu baax am bu bon kon yar bu baax mooy defar yar bu bon mooy yàq kon loolu lu ñu war a bàyyi xel na ca gën a sonn ci yàq moo tax nga gis ahlu tasawuf kilifay tasawuf yi dañuy wax ne ñoom ñaari étape ci la ñuy jaarale taalibe bi ñu leen indil surtout bu dee ña ko doon defar sonn ñu ca woon te mooy at taxliyatu wa taxliyatu dañ koy setal ba mu set wecc ci taq-taq yi mu jot a yor indaale ko fa door koo takkal nag ngëneel yi nga xam ne moo ko tax a jóg sëriñ bi di ñu ko digal jox ñu ko par kenn pour wane ne kenn ku ne ci ñun war naa jël wax jooju mu ne tahir fuaadaka min arrazaili wa xallihi bi afdalil fadail sa xol bi fexeel ba laabal ko ba lépp luy nuroog ay eh, taq-taq jikko du ca nekk soo noppee nag nga jël lépp luy ngëneeli jikko takkal ko ko ba mu nekk ci moom kon loolu njàngalem Cheikhul Khadim loolu lañ ci fekk moom ci boppam loolu la mas doon liggéey mooy yar nit ñi ak defar leen ak taxaw ci ñoom ki ëpp nag lu mu war a jël ci ab yar mooy jigéen ndax jigéen moom boroom xam-xam yeeg ak dundiin bi nga xam ne gis nañ ko jamono jaar ci ba jàll ci ñooñ diineeg ñooñ ceet doog ñum ci mën a doon liñ gis mooy jigéen ña doon baax ñoo fi bàyyi njaboot bu baax jigéen ña meloon neneen ñoo fi bàyyi ñu mel neneen comme nag jigéen nu mën a def njaboot gi jaar ci moom te diggante bi muy nekk ci moom mooy ëpp kon jigéen war naa taxaw temm ci defar njabootam te loolu mënu koo def lu dul moom ci boppam dañ koo defar ba noppi moo tax yar jigéen am solo moo tax buñ toogee ci jataay bii tey ci kër gi loolu rek lañu ñu mën a yóbbu moo tax tàmbali ma ne woon ñi ne ñu nañ waxtaan ci jikko wax nañ lu jaadu wax nañ lu war a nekk itam ndax fii ay soxnaa fi newoon yu ñu defare fañ dëkkoon ñu ñëw daje fi ñëw toog fi di fi defar ay nit ñoom sax nag dañoo defari jigéen ba defaraale ay góor te loolu mooy rôle jigéen ci dund bi ñiñ defaroon liy firndeel defar gi mooy ñi ngi nii dellusi si fi di leen ñaanal ñi ngi nii dellu si fi di leen fàttaliku ñi ngi nii dellu si fi di leen delloo njukkal ca lañ defoon ci ñoom te ñoom xam nañ ne ay tànneef lañu yu ami jagle ni yeneen soxna yonent bi sallallahu sama amee woon ay jagle xam ngeen ne alxuraan beral na leen ay aayaat yaa nisaa nabi di leen ber waaye wax ji ci gën a yéeme mooy lastun naka ahadin min na nisaa yi inni taqaytun bokku leen ak benn jigéen ci jigéen te yàlla day baamtu loolu ci alquran soxna mariama alayhi salaatu wassalaam yàlla waxoon na ko lu mel noonu yaa maryamu inna allaha stafaaki wa tahiraki wastafaaki ala yow maryam yàlla dalaa tànn sette la tànn la ci kaw jigéeni àddina yépp lool lu muy firi mooy yow jigéen ji ak foo mën a jigéen Mariama nga Xadijatu nga Fatima nga noo mën a tudd yow jigéen ji yàlla da laa tànn nga war a doon koo xam ne exemplaire ngay doon ci jikko yu baax képp ku la jege daa war a takk ci sa mbaax képp koo yar dafa war a baax waaye bu ko yàlla beralee soxna yonent bi c'est parce que ñoo doon royukaayu jigéen ñi àdduna ci liy ñëwaat kanam. ndax ñooy yaayi jullit ñi ñooy ummahatul mu'minin moo tax ci biir kër Seexu Xadim jagle googu da leen di laalaale ndax ni ko ñépp xamee Sëriñ Tuubaa daan na wax mag ñi fii naan leen saxaaba yi ñooy seen baay ci diine kon danga naan soxna ya fa newoon itam saxaabiyaat yële woon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa ñooy seen yaay ci diine léegi nag ñun murid yi tam soxna yi woon ci dëkk bii ci kër gi ñooy sunuy yaay ci diine duma wax ñooy sunuy yaay ci wi mais ñooy sunuy ci diine ji ndax ñoo doon yaay yële woon ca diine ja ni Seexul Xadim doon noo sëriñ bële woon ca diine ja noonu la soxna yi doon ne soxna yooye woon ca diine ja moo tax ñun ñii di murid yee tam danoo war a doon nag saxaaba yooyee soxnay saxaaba ya nga xam ne ci waa kër yonent bi lañ daan ñëwee di jàng si di fi yaroo di fi tibbee ay jikko yu baax di ko yóbbu kon soxna yi nga xam tey ñoo ñëw fii tey te doonoon ay rabi baat ci kër Seexul Xadim di ay rabi baat ci kër soxna yi dëkkoon ci kër sëñ bi ñooñu moom li ñu def nii rafet na lool am na solo delloo njukkal la waaye am nañu aw sas itam nag te man ca laa bokk keneen bokk ci ndax eh, barkeb barkeb ñu baax nga xamante ñoom moomu andi ba ci biir liggéey bi ma duggaale ci kon ci laa bokk keneen kuy dégg kàddu gi ci nga bokk keneen ku xam waa ba sax ci nga bokk ne danoo war di jël bu baax a baax a baax ay melokaani soxna yu mag yi nekkoon fii di leen roy ci lépp nag temps bi moo jeex tàkk moo tax nekkuñu fi di tudd di détaillé ak a joxe ay misaal waaye mën nañ ci tudd ay kenn ku ne ñu ne diw sàngam ràññi ko woon na ci melokaan sàngam te loolu dajeem nit ñu baax noonu lay mel dañ naan diwa gën a ràññeeku ci tabe diwa gën a ràññeeku ci yërmande diwa gën a ràññeeku ci nàngam buñ noppee nag maasale waatal ne ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ku ne jikko yooyu dañ koy tibb ba doyal moo tax ñi fi nekkoon ñii fi yaroo woon ak seen njaboot gi ñuy am sama yaay kër gu mag la yaroo woon sama yaay ci waa barsàq lañ ko yaree woon doy na ndam ci jamono ji ñu toll kon tout tànk yu mujj yooyu noonu ndax ñoom laa saña a waxal nañ bàyyi xel la xakim ba waxoon ne daa man yaraaka yaddu liman rabbaak na nga fexe ba melal nu tax képp ku la gis ñaanal kalayam la yam léeg-léeg nga jëflante koo xamul fu mu dëkk xamoo ay ceefaatimam waaye danga ñaan ne gone gi de ka ko yar yàlla na ko yàlla dool ni ay xéewal ndax jëflante bu rafet teggin yu sell yoo xam ne mën na koo jëflanteek ñi muy jaxasoon te pourtant catégorie boo dem danga ko fa fekk te kookee daa def ay effort góorgóorlu rek te tax mu mën a mel noonee mu mel ginnaaw buñ ko yaree ba noppi waaye fépp fu nit ne ci dund gi lépp lu nit mën a liggéeyee bépp béréb bu mën a ne bu bëggee baax gis na fu mën a roye ak mbaax sëriñ Tuubaa ngi ñu koy jàngal ci catul catul catul nax ju xabaay xaaj di ñu wax ne am na koo xam ne dañ ko laaj ni mel nan la def ba mel ko mu ne damaa gis ñi nga xam ne dañoo dëng ma moytu seen dëng te ga daal di fas yéene jaar yoon wu bokkut wañu jaar loolaa ma dimbali ba ma jube ni ma jube lu yomb la adduna foo mën a nekk da gis koo xam ne dañ naan la kii de bi muy nekk ci diggante ndeyam ak baayam ni meloon ci yaree di kooku doy waar waaye ba mu génnee ba tumuraanke ji ba dikk dane cocc loo defe ne moo ko cocc loo kenn jàpp ko di ko duma daa gis ñay defu ndëngte fa ñuy mujj ak lañ leen di won mu daal di ragal loolee daal di moytu safaan loolu kese la moo tax ma ne woon ci tàmbali bi bu lay waajur tàmbali tàmbalilee ab yar mbedd mi dolli la ci dara boo demee bay mag mën nga koo mottali sa bopp haza wa axiru daawana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa wa barakaatu tubaarkàlla sama xar ñëpp gari mën na nag ñu ñaan ci sëñ bi yàlla fay na